wajalilaayi maskani tuubaabaat misrak mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tuubaabaat misrak mi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdana salaat في الناجي اللهم لا تغتبر أبيما لا يسد بخادرات ولا تخالف رجاب فيك يا الله واسقنا ماء من مائك سريما اقدرته من جمي خلق يا الله yaar ak màggal kullukum su ma limee damay juum comme ni ma koy defee saa su nekk rek ndax chaque année dañuy ñaan yàlla fekke déwén fekkewaat déwén fekkewaat ay déwéni déwén ci barke Seydina Mouhamed li may wax naan boo fekkewul doo jàmbat boo fekkee dangay ngay jàmbat ndax sëñ Touba jar na lu ëpp lii waaw safar gi dama ciy nuyu kullukum maanaam li ko tàmbalee góoru marché muusante yëpp teg ci sunu yaay faali macha allah laf jat sama catu moroom ndax xale yi daal engagé nañ xam nga la moo tax ñu engagé taalibe Serigne Touba lañ dañoo dëgg parce que nit ki boo dëggul doo def parce que bëreet yomb na de waaye toog ba mooy jafe tànk Serigne Touba nag amul tànki ginnaaw ci kaw ci kanam ndax année biñ ko njëkkee def nag la ñu rey te booba tey chaque année nag ñi ngi rey suñuy ñaari nag macha allah ndax koo wax mu la safalu maquette bi laay xaar ñi safal bëri na de Serigne Touba daa jaboote ñëpp. ndax ku mu woon der gi ci géej gi rek jullaaleel na la parce que sa maam la mais boo waxee ñu ne marché Moussal yéen kañ ngeen di safar kon dañuy ñaan sunu góor yi sunu jëkkër yi yàlla bàyyi leen fi lu ñu yokk ren yàlla nañu ko mën déwén ci barki Seydina Mouhamed di leen wax ñëpp am nañ jaam am nañ salaam ne ñëpp am wér ñu màggal ko ci bisimilahi rahmaani rahim ñëwaat ci alhamdulilah rabi àll kenn bañ a manqué ah bamba daal moo woote bamba fépp bamba partout ñun daal kontaan nañ sama xarit waañ bi comme dab rek bu aas ñëwee 4 heures matin ma ñëw 4 heures du matin faatu fekk si ma te ñu ñaari jigéen lañ de Omar aas ñoo fi nekk ci waañ bi ndax loo teel teel teel teel bu ñu noddu fajar fi nga leen di fekk wallaay azim ñooy commencé taal man ma ñëw faati ñoo fekk si ma te marché muusante li muy rëy rëy rëy rëy gémmañ bu waxul dëgg wax fen ñaari jigéen ñooy gérer man su ma ñëwee jàpp fii Fatou day ñëw jàpp amul sonn naa de amul taay naa umu tey jàmbaar la sama xarit bi dama koo sonal umu góor jàmbaar la mention su suñu yaay ji nag moom jaraabot lañ koy wax ndax olof nee na jaraabot mooy jërëjëf mooy Fatma ndax liw bi liw bi branchement filière bu ko neexoon bran croiser ay loxoom ni du ñëw wala ñu ni ay xale lañ te man chaque année man meluma nee na ci marché muusante bi aw ma fi lenn mais su ma ñëwee dañ may jox waañ bi ma diriger te ku ma ni defal li da ngay def li doo xaar sax ñun ñëppay xaacandoo dóorandoo parce que Serigne Touba jar na lu ëpp loolu ñun Bàmba rek la ñuy topp ba keroog ñuy dee incha allah te bis bu ñu demee ilaa Touba te yàlla na yeex dem nga fa màggam am nga ni li laay yow alaaji falo yaay ju boog li dem na màkk armal naari naan ko seetal giya gi bukkul ak ñi fi daan siyaare dem na makka armal nari nan ko seetal giya de bukkul ak ñi fi daan siyaare dem makka armal nari ko seetal giya gi bukkul ak ñi fi daan siyaare jànguloon na laanu la ngay buur mooy bolam jaloore la sama waaju séddoo woon ak Serigne Touba laay séddoo ak yéen muy kaasub ataaye boobe loolu rek doy na sama diggante ak yéen foofu laay yam ci moom kon sëñ As ñoo ngi lay dalal jàmm di la ñaanal yàlla sunu borom guddal saw fan te wéral say cër nii nga tooge noonu nga fiy tooge at mu jot nu waxee nga sëñ tubaa sama maam la yéen a ko gëm nag yéen ko wóolu waaye man mii sama maam la cër bi ngeen ma ci joxit moom laa ci am kon dangeen delloo mbattu ca ndaale kon yow ku nangub dogal nga ñoo ngi ñaan sunu borom guddal sa fan te wéral say cër ñuy ñibbi mu yëkkati paas jox ñu ñu wax ko li nu bëgg ci bis bi ndax bis bii mosuñu cee woo kenn ay gone yu ndaw ñoo nekk fii yoo xam ne dañuy daan seen doole bëgg sëriñ Touba wóolu ko gëm ko di dunde seen ñaq di ci yëkkati di liggéeyal sëriñ Touba at mu jot bis bii li koy taxawal bu matul un addiye jaa ngi nii ñu di ko dajale ba at mi delsi ñu sant la ci yàlla sëriñ Touba kon bis bii musuñ ceewoo kenn musuñu ceewut wàllu waaye danoo toog ak as mii mu wax ñu ci moom loo xam ni kuñ ko wax nga xam ni kii jëfkatu lu baax la ñu dem fekk ko këram mu ne ñu li ngeen ma boole am naa ci ferte bu baax a baax a baax a baax a baax ndax taalibeeb seex laa waaye dama bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa kon bis bii ngeen ma woo lu ma ci man danaa ko def ngir sëñ Tuubaa daal di yónni as mi yëkkati enveloppe bu duuf bu ma neexee sax eggite ndax li ñu defal million la ci ñun yëkkati fanweeri junni dugal ci ne ko maa ko barkeeloo ci bis bi ngir sëñ Tuubaa nit musuñu koo defal nekk na noog ay nit ci marché bi xam nañu ay autorité waaye kenn musu ci yëkkati ñaari junni ni ñu maa ko barkeeloo ci bis bi ngir sëñ Tuubaa yaa ko njëkk a def kon ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba li nga def ci bis bii yàlla na ci gis lu kawe sa njort yaa koo àndal ak ku ko yéene ci barke sëriñ Touba. Bamba bi Mawdo di Bamba mam Alaaji borom kër Alaaji mam Ahmadu Baranjegin wala Seydi El Hadji Malick Bamba demal kër Mame Alaaji Soote Bamba sopp Seydina Muhammad sallahu jaka wa kulen bi xéewale ana soppay yonen wa Karbala Bamba شك العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالقرآن وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به داود جاء به والروح يلاح بلغ صلاتي وتسليمي عليه الله ولا وصحبه وأزواج الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman inna rasulallahi faaqa albasara wal jinna والأملاك هاسل فقرا بركة كتابي أبد كوني خديمة مجهن كوني هاي نفر قرآنه حبل كلما لم يسرادي والسماء جد مكاتب زوات حددي لله ونسوة النقدي يقول باقي دواما ما عود إلا جناني دون دين أو كبدي صارني الباقي مسرة تدوم في سرة أنفال حبس الكريم لله ما كتبته من جيسس lillahi ma katabtuhu min jaysasin way rasulihi li xatmi jaysasi lillahi ma katabtuhu min jaysasin way rasulihi li xatmi jaysasi lillahi lillahi lillaahi lillaahi lillaahi maa katabtuhu min jaysatin way rasuli xadni jaysati hajjatam yabya sakur way nabi xadiman xadiman xadiman saxsakur min ya lillaahi ilaa duxuli janna ilaa duxuli janna تأتي بلاسا وقد فتنة من دسس إلى دخول الجنة حتي بلا أذن وقر فتنة حنيت بالكساء والأجور وبسبب أن أسد دهوري في التمحت ودينا به لينا فائز أو صالح في الدم حتى بينا به لينا فائز أو صالح لنقالت الأجور والمصالح كل شق سرين صالح بدء لنقات أجور والمصالح سرين صالح والمصالح أنا واكل سرين صالح لنقالت الأجور والمصالح كل شق سرين صالح بدء ana sopp sëriñ Saaliw ku sopp sëriñ Saaliw Mbakke bi tey wa jës wa inni saalihu bamba ni kii saa dooma sëriñ Saaliw lin qaatu ujuru wal ma saalihu sëriñ Saalihu ana waa kër sëriñ Saliou sunu waaja bi tey waju so inni saalihu ba bamba ne oma oh, doom saalihu taxul lil xaatir ujuudu wal ma saalihu sëriñ Saliou Mbacké bi tey waju so inni saalihu addaxaltu fii jaybi rasuli kulliya sallahi man ajjala kulliya dini kitaabul mustafa la xayru wa yantahi ila suwadiru xabbatu rabbi wa sa kitaab mustahniyan an isaab bi sawaab lillahi wajjatu ma ahnaani ali ala qalajin mudu karam bakke nurini borom daaro ana waa kër borom daaro ma fa isa jeeyi ndamal da ceerno ko jiitu woon fa Ndar dañ fay nuro gaynde gu ngar mam ceerno tanga faaw tangay wutar borom daaru mu nan buy delu nan ko kër ana waa kër ndamal daaru ma jana faati sigi borom daaro borom daaro borom daaro borom daaro maami Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni ku daaru jërë jëf la وليخوض معروم وجاء كل يا لخير المنزلين وتوسل بخير المرسلين ذلك فضل الله نحم الله ربي ولا إله إلا الله بالله يوزت من جميل موسيات وهو آخذ بكل ناسيات أكرم به ربنا في سندفها لخيرنا ما ساءنا فاندفع لو سكوري بعد حمد سرمدا ولا يوجه إلي كمدا لمن لا سوى يساخ كمدا وسكور بالرضا ويا سرمدا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم من أولي الأمان ما توجه العين لبلاد توجي شيء من أولي وخبلا نفس سياتين لخير الله خطا ولا إله إلا الله الله ربي زائرا وباتنا حيث أكون ساثبا إن خاتنا ليس لإبليس عليا من سبيل ينال خير أبدا مع الخبيل سخاوة إلى سواي تسدوا ولسواي من بدر رسدوا يسوق من له البرايا كلما يسوني في أبد مسلما أراد من قبل توجه اللعين إلى سواي ربي الباخ المين أبل إله أن ألاقي أزا كما مها ما خبجاوا من الأزا نفى البلاء والعذاب والنكد لخيرنا وكل ما يبدي لك أبل الله أن يواجه القدر أو غيره إلي شيئا من القدر لا يتوجه سوى الحدوان لأبدا وفزت بالردوان رد السيان التين لخير الباخي من قبل خسد وأباب باخي جر اللعين والمفاسد إلى خير بلا توجه لسائلا أعوذ بالإله الوجود من السياتين وخير جود عست بربي الوجوه والخدم من كل ما يفدي لسلة الخدم صبا مخالفة تماثلا وقد كفاني در من تمثلا بمن الخيام بالنفس وجب فعل سبعين فلقدات نام أذن ممشيخ إبرا فعلاي ليدك نفعل seexo ibra faalaay sabay nga fan ja goddo tuñ daamu to Cheikhul Khadim Mbaye Bassirou Bara Mame Dina Cheikh Mbacké gorgo deman gawandal ko tuma daw daw me ko so ko khadiman masawa khairul khadimi min bismillah وسر سار حد حسد يوح جارة الفارقة جارة الفارقة داريني داريني أوسع يا ليتني كنت متوا جليل فتن ولم يكن كالكلي إلى الحتام ركن يا ليتني كنت متوا جليل فتن ولم يكن كالكلي كالكليح ولم يكن كالكليح إلى الحتام ركيح ولم يكن الحوار فاليوم فاليوم فاليوم فاليوم فاليوم قلت أين أستغفر الله تعداد الخاطر من الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله وتحدد الخواطر منه انس وجن ومن حب ومن حجم ما شئت اعطي مما لم يرضى مالك لا مثل سماني وما لم يعطي خيدنا فخذ مستغفرا والله ساترنا استغفر الله من الله رازقنا والبلابل محدن موصوف بالكرم هل تحلمون بأن الله بأن الله بأن الله بأن الله ناصرنا وعدن كما هو بالأحوال حاصرنا وفقلكم فليقل وخوف النباحسنا وصبرنا أجل الله باعثنا ليمن مزدحمل أملاك والأمم توبوا إلى الله واعتدوا ملاطبة فحسنوا بابكما خوني مكاسبة فكلنا فليتد يرجوه مصادبة أستغفر الله أضعافا مضاعفة لما مما سكرت مما سكرت مما سكرت من الأجناس والخشم الحمد لله الحمد لله لما خرخدا وتري من بعد ما كنت صاع فخر وسعد ريح قبل الكافي مسيدا منه في الأسر ثم الصلاة على المطر من مدري خير البرية سيدنا محمد leen tënk bamba borom tuba budul ko nag yow Sénégal ku fi su jóot def ñaari gaal borom tuba budul ko nag yow Sénégal benn Cheikh Saliou benn Serigne Saliou benn Serigne Saliou benn Cheikh Saliou benn Serigne Saliou Mbacké borom xarton borom njurul borom ndoka borom daara ñoro bay Cheikh Moustapha Saliou Mbacké ku sopp Serigne Saliou ku sopp Serigne Saliou mu sopp Serigne Saliou mu sopp Serigne Saliou ku dul murid di ko taxa takk nga magal Cheikh Saliou Mbacké mais Cheikh Saliou ay borom Tuubaa Mbacké mais Serigne Saliou te Seexuna la Xadim kañ sa mbër te bañ a xaabaabal mbër matul mbër doole jaa bariwul Ahmadul ahmadul xadim bur yàlla moo ko jox bur yàlla moo nu ko yut bur yàlla moo nu ko baaxee moo yàlla foo jële kii sëriñ mam Cerno Birahim Ndaama Daarul Muxti Baay Cheikh Awa Balla Ousmane ak Aydara Baam Cheikh Modou Kara Mbacké noore ni sëriñ mam Cerno Birahim ko saba Seexul Xadim bur ko jox borom bisimilah Mouhadim Mbacké bu dee la maa ko jox bu dee la maa ko yott bu dee la maa ko baaxee moo yàlla fu ma jëlee kii jaabaab sëriñ bi Seexul Xadim Mbacké bisub gaawu lan ko woolu mu gànt ni tubaab ba dellul tabul ma tontu dellul tabul ma tontu mboole Mbacké Mbacké yëpp ak musóobe dajaloo fa kanamu Cheikh Bamba di jooy ba woobe nan Serigne Touba demal nga wuy ji lu ko may musiba am fii ci Mbacké Serigne Bamba nan leen ndigalal sama borom lay déglu waaye waxuma ak seeni morom xawliya la ilaha illallah muhammadun arsalul ilahu bul fil ak bul saalum ak tubaab yàq mbarke ak nguur mbaa daan te su ko cuy ñu dallu woolu Cheikh Bamba ne ko nuyu si lu ko metti may fal bor Cheikh Anta borom Daaru Salaam gaawaan borom gën a téy bay Serigne Modou Mamoun Mbacké al tàkk Mbacké Cheikh Anta borom Daaru Salaam wala Daaru Salaam wala Daaru Salaam Anta moo yónni Ndiogu Ndiaye xibaarkatu Bamba tubaab ba dani ko Seex boo demee neel Seexunal Xaddim bettuma ko tubaab ba ni ko boo demee neel Seexunal Xaddim bettuma ko te ñu ma xam ne man tubaab bi maa yëli fii ba ba ko Serigne Bamba naan ko yàllaa ngi fi ak yoneen ba Serigne Touba daal di woole sere dani leen bu tubaab ba ñëwee kum fekk taxaw doxal sa yitte dara du am kum fekk tëdd nelawal te yor sa ngëm ñoogu njaay dellu xibaar ko tubaab ba ni ko Serigne Touba ne bala ma ca ngay ne la ñëw tey illaa bis ni laa i moo sañ Borom Tuubaa ne mun la ñoota i la bismillah i o ah, bala ma canga i moo sañ moo tay Borom Tuubaa te Seexul Xadiim Seex Baabab Seex Baabab Seex Baabab te Seexul Xadiim ay Borom yow sa may gi bàyyi sëriñ Saaliwu xanaa gaba nga ko ngoore gile may gile may sax xanaa aras nga ko jiine bàyyi sëriñ Saaliwu nga tekkee sa ami may ya fanjaarim tala bawal naat ba na wati kajoor ba nga tekkee sa ami may ya fa jurbel tala maa xanjalaaxe ak ndoxu mboore oyi borom Tuubaa yow sa goro yow lu yàlla sa goro yow yàlla yi sago yow yàlla yi sago kii sago Seexul Xadim jugal taxaw ca ka wax jërëjëf borom Tuubaa kii sago borom Tuubaa jugal taxaw wax jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf borom Tuubaa yow yàlla yi sago yow la tey sëñ Tuubaa tey sëñ Tuubaa gis nan teyam jëgàcceeli démbam renam dàq daaw mburum yàlla maa ngi bàyyi Sëriñ Saaliw borom yàlla maa ngi bàyyi Serigne Saliou borom yàlla maa ngi borom yàlla maa ngi borom yàlla maa ngi Serigne Cheikh Ibra Fall Ahmadou Fall Serigne Ngaye Biram ñu bica Ngaye góor jëkk bàyyi Lalla Fall maam Serigne Cheikh Amdi Khadi Fall maam Serigne Cheikh Fall bàyyi góor mën a Cheikh Abdou Sakor ku sopp Cheikh Ibra Fall ku sopp Cheikh Ibra Fall loxo ci kaw Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Cheikh Ibra Cheikh Ibra samtu kullu makaanil islaami samtu kullu makaanil islaami wajalilaahi maskani tubaabaat misrak mi abijaayi xayri manabaat wajalilaahi maskani tubaabaat مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا عليها بن السلام